personnalité yi notable yi fi nekk ñu nuyu waajur yi aussi defe naa Fatou Thiam ma doon wax si maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la félicité ci loolu bi nga am waajur ñu lay def ku doomam ci wet bu ko ci leneen sax bu xoolee waajur bi rek ko kon félicitation maa ngi lay ndokkeel bu baax contributeur yi déglu nañ programme bi xam ne sama doom Bàcc Faal mii may nuyu futur maire de Biscuiterie déglu naa sa programme Bàcc programme bi nga décliné programme bu ambitieux te maag yow comme que dañu nekk ci union citoyenne butt bi ci la ñuy demee élection incha allah bu ñu yàlla falee yàlla rek mooy fal bu ñu yàlla falee bu soobee yàlla danaa ànd ak yow ci sa programme bi. lépp loo xam ne bëgg nga ko dem fii ci discuterie te xëy na moyen nekkul ci mairie bi mairie Dakar dana ñëw jàppale la soxla. wax nga fi yu wax nga fi centre de santé. wax nga fi employabilité des jeunes wax nga fi petite enfance programme yooyu yëpp ñun am nañ ko ville de Dakar. usine pavage bi ngay wax balaa ngaa defar sa usine une suñ bos bi ñu paree ubbi danañ la jàppale ci pavé yooyu en attendant ngay defar sa leneen loo xam ne amuloo moyen def ko ma koy fàttali mooy éclairage public. éclairage public compétence ville de Dakar la lamp yi ngeen gis ci Dakar yëpp ville de Dakar moo ko defar kon bàcc foo ma ne fii lamp amu fi ñu ñëw defaral ma tali yi gis ngeen ne tali ñu def ay ñu talil la danañ ko la yi association des femmes am na ku ko wax léegi xam ngeen ne FODEM mooy banque municipale bu mairie Dakar formé nañu jigéen ñu bare bare bare bare formé leen pour ñu créer seen entreprise jàngal leen nan lañ koy téye jàngal leen ba pare ñu boole ci benn accompagnement defar nañ ko femme biscuiterie yi am na ko ko wax léegi a ville ñëw renforcer ko yaakaar naa ne bis danañ jigéen ñëpp danañ liggéey xale yi yëpp danañ liggéey ndax suñ couveuse d' entreprise boobu nga xam ne incubateur la ña ngi fay former ay jeunes entrepreneurs hommes et femmes kon loolu itam danañ ko ci jàppale man nag sama xel dafa dal ndax depuis tey ci suba dañ ma woon ay projet d' aménagement dama dem ñu woon ma bu corniche bi mu mel ni Dubaay laa nekk ma ñëw fi bàcc woon ma lii ñoom ñi nga xam ne ci bannière yi ñoo citoyen lañ nekk bu fekkee ne maire bu nekk wane na lii bàcc wane ñun dañuy kontaan ci ànd ak moom ci liggéey boobu kon nag nañu fexe le 23 janvier ngeen dem ci urne bi ngeen wote bàcc faal mu nga dem bu leen fàtte ne vote bi ñaari vote la ma ngay voté commune bi voté ville de Dakar bulletin bu bleu bi wan nañ leen moom la bu leen ko fàtte te jigéen ñi